saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Abdoulaye Makhtar Diop ma yëkkati dëggam teg ko ci kaw CNG ak Alioune Sarr Abdoulaye Makhtar Diop vol au secours des arbitres loolee sax le journal ba xamle gannaaw kàngam yi nekk ci làmb ji ku ci nekk nanoo gisee bile tiiraay ma moom am na nu ko gisee mbooleem ñi àddu ci bile grève ña ëpp la xamle mooy arbitre yi dañoo waroon a déposer de grève ba noppi doog a grève loolu moom Abdoulaye fi semaine grève fi ñaari semaine ñaari fan képp lañ fi grève muy samedi ak te nekkut ne entité day grève ñaari fan rek ne da ngaa jël sa décision raje ko loolee CNG def du dëgg du yoon c'est pas normal rax ca dooli ne Sitor bu dee ministre bi moo ko nommé par arrêté moom commission tuuti na ci raje ko bu dee arrêté ministériel moo ko nommé amul benn commission bu ko mën a raje ku ko defi da ngaa def lu la neex waaye loolu du dëgg du yoon bu dee respecté nañu parallélisme des formes comme niñ a bindab leetar jébbal ko ministre bi ngir mu raje benn sañ-sañ wala benn dogal di raje Sitor foofee moom xam le def Sitor Ndour du dëgg du yoon la ond le fu wax ca sunu lamb bu dee dëgg bu dul dëgg lépp Malick ñi nga àdduna ca moom ond le fu dafa xam woon ne seen écurie boobee di xam sa cosaan liggéeyatuñu sérieusement Jordan ba ko rëg-rëg daanee ba léegi tegatul tànkam ca écurie ba naaru moom gëj na fa ca combat contre double moteur soq ci combat ak gàmmo géey la commencé ñëw président Malick ñi nga xamatul ca écurie bi loolee la maanaam te ndëpp ab waxtaan wu yaatu ci arène nationale ba le 21 waxtaan woowee ba ñu cay génn la waxtaanoon ba juboo ca mooy dañuy dem ci fédération axlu lamb doyal nan dañoo bëgg dem fédération waaye li ci jaaxal mooy écurie amateurisme ba moo ci ëpp bari na écurie yooyu dem doo xam kan mooy président kan mooy secrétaire général waaye bu loolu rombe moom dem fédération moo gën ci li nekk